envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. ay Aïcha mbokk yi comme ni ñu ko waxee ba tey ñu ngi nii fi nga xamante ni mooy BCEAO ci anniversaire bi nga xam ne mooy anniversaire Diatou Savon ñu fekk fi nag ticket euh, ñu fekk fi asolobe euh, ku ko xam xam digganteem ak bébé waaye xam digganteem ak euh, ki nga xam ne mooy engagé rawatina ki nga xam ne mooy Diatou asu maa ngi lay maa ngi lay fay góor guy gi asalaamaaleykum maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp guy gi fi nga ma fekk nag dama fee war a ñëw jatu Savon mooy anniversaire tey te kenn dootu ko. présente sénégalais ñëpp a ko xam bébé Eva ne ma Astou Laobé boo jógee tournage damaa bëgg nga ñëw damay yóbbul jatu sebon kado damaa bëgg nga ñëw gunge ma ma sawar lool nag ndax man nit booy def dara te xeeboo ma damay damay xam sama bopp ndax man fu ma nit yem laa lay yem mu def geste boo xam ne dafa rëy ci man kaay gunge ma yóbbul jatu sebon mi nga xamante ne nit ku baax muy xale bu baax nag moom jatu c'est am ambition ñëpp bëgg ko Sénégal artistes yëpp ko bëgg waaw palmarès bi rafet na te liggéey la xam ñàkk jëriñu man loolu laa ko nawee guy gi asu fan yi lan moo tax nga raar asu gën nañ ko gis wala ci tournage yi waaw man nag noonu laa mel man damay nekk ci réseau sociaux yi ba ci kanam ma daal di toog euh, concentré wu ci leneen parce que Euh, kii bi dafa metti daal def ay vidéo metti na mais duma ko ba ba abadan mënuma koo bàyyi parce que man sénégalais ci lañ ma xamee looloo tax ñu bëgg ma te booy bégal nit ñi yàlla da lay bégal moo tax duma ko bàyyi damay léeg nag ma jël poose rek mais damay ñëwaat. asalaamaaleykum nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla ku sénégalais yi bëgg la asu jotaay bu mu toog ñëpp a reetaan loolu lan la. waaw loolu nag guy gi may yàlla moo koy def. man ñu ci bari dañuy dañuy dañ may defal interview naan ma yow xanaa yi ngay wax danga koy créer ak sa terme yeeg yooyu mbirum yàlla la sant yàlla nit artiste toog na di wax di wax toog ci bayal àddina yi nit ne fa kenn du ree man su fi su ma toogee su ma nee na ngeen def rek nit ñi commencé xaqataay te booy bégal nit ñi yàlla da lay gën a bégal dama koy sante yàlla nag guy gi bu baax a baax surtout loolu waaw. d'accord am na solo Astou ku ne gis na réew mi fi mu toll jamono ji daanaka euh, crime yi bari xale yi di réer en tant que influenceur en tant que yaay bi nga xam ne dafa sukk jur euh, tey lan ngay wax fi réew mi toll ak tolluwaay réew mi aussi. waaw euh, tolluwaayu réew mi mooy jamono bi dafa jaxasoo pour may wax yaay yi ñu gën a farlu ci seeni doom yi parce que jamono ji pour nga yàqu rek dafa gaaw soo juree sa doom da ngay am jotam soo juree sa doom waroo ko bàyyi mu nekk enfant de la rue da am jotam bu heure añ jotee ngay xool fan lay nekk bu demee foowi nga fexe mu dugg si ci kër gi nga tànnal ko heure ndax jamono bi metti na dëkk bi tas na ku dem bay fekk nit ci biir kër di ko def naka sidul noonu kon nit ñi senegal daal tiit nañu ñun. parce que asuma li ma jaaxal loolu dañ ko daan dégg ci réewu ñag yi. mais léegi Sénégal dem nañ ba daanaka rey nit ak naan ndox la ñu yemale. man looloo ma jaaxal ba pare nit ñi amatuñu ay xol da ngay da ngay tiim nit di ko rey ko ba mu dee nii nii non lii war na jeex Sénégal man ci ay dëkku ñag yi laa ko gisee woon ak ay film mais dafa dugg si Sénégal yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla musal damaa bëgg nag. ku ci nekk nga jël sa précaution parce que tamit tim nit di ko jam ko ba mu dee ku ne war ngaa jël sa précaution ci loolu yàlla nañ ci yàlla musal sécurité bi nag ñu ngi koy ñaan jomaay waaw parce que ci koor gi dama ne ko jomaay mu wàññi jën wàññi yufuf bul wàññee wàññeeti jën jomaay bul ci ceeb yokkal ñu sécurité bi loolu rek la ñu soxla man démb damaa tëdd ba mu yàgg guy gi naan kookal la kuy fëgg daa di jël kuur yor paaka di xool kuy fëgg guy gi damaa bañ ñu rey ma. lëkkaale Aziz Dabala mu nekkoon koo xam ne nit ku baax la nekkoon koo xam ne ku amoon avenir tey boo xoolee yaayam euh, amoon ci moom yaakaar euh, doomam ci demee nii donte duñ dugg ci yenn yi mbiru yàlla la mais tey nit ñi di def yu mel nii est-ce que duñ sóoraale le cas de Dabala euh, tey lan nga ciy wax. waaw guy gi may profité waale di jaale waale Aziz Dabala di ñaanal yaayam yàlla na ko yàlla may xolub muñ di ñaanal seen waa kër yi yàlla na leen Aziz Dabala dëddoog jàmm waaw lu metti nag muy doon nit ku baax Aziz Dabala yàlla na ko yàlla xaaree Firdaws yal na yeggalee ndawam al euh, aljanay fil daw si man VIP sañse la ñu daje bi ñuy njëkk a gisante VIP sañse la ma ñëw tournant di diri sama valise rek mu daanu ci suuf di ree moom nitu ambiance la Aziz yàlla na nga yeggalee sa ndaw àjjanay firdaws ba pare moom dafa am joie de vivre Aziz Dabala foo ko fekk day kaf day foo day ree fu mu toog kenn du ñepp yal na ko yàlla yërëm waaw léegi nag di ñaan rek ñu gën ñoo yokk sécurité parce que man damay tëdd ba mu yàgg sa naan kookan la di xool ko ubbi ma daa di yor sama paaka guy gi suñ demee ba assulaw be mii ku ko fëgg mu yor paaka ne la kookan la kon dëkk bi yëggu na dëkk bi yàqu na. bu réew mi tollee fii euh, euh, lan ngay lancé ñi nga xamante ni ñooy nekk ci appartement yi parce que nee nañ boo xoolee ñu bari nekk ci appartement yi dañoo war di contrôler sécurité bi di vérifier loolu tamit c'est très important. c'est très important appartement yi nag ñëpp war nañ cee jug ndax li xew barki démb waaw surtout ñun artistes yi war nañoo jël suñu précaution ba kenn duñu bett. parce que nit daf lay sible rek suñ demee ba nit tim moroomu nitam di ko jam ba mu dee kon yërmande amatul mais ñun nag ñoo war a jël suñu précaution képp ku yor appartement nga am sécurité nga def ci alarme ku ko ubbi. caméra caméra de surveillance ku ne war nga ko am sa kër ak alarme bu def katu ñaawte bi laalee sa mu wiiw wiiw nga mën a woo police. mu ñëw wàllu la foofu lañ toll. asu fi may xaritu léegi ndax amate na asu léegi jamono ji kenn jaratu la wóolu. xaritu léegi amatul man na xamal tax ma noppalu tournage téléfilm sama kër aw ma xarit aw ma àndandoo parce que man su yenn ci koy foo yi bu ma ko gisee ci nit bu ñu dajee nag nañu kaf nañu reetaan mais bu jeexee na ku ne dem sa yoon waa guy man xam sama bopp moo tax aw ma xarit aw ma àndandoo parce que mënoo jiital nit ki ba pare di ko fakastal mënul nekk balaa caag nga daal di xam sa bopp daal di raffiné wu jàng sóoratul dal ak aaya réglé loolu laay dund man Astou Laobé. d'accord xam naa fi may jeexalee mooy ñu gis Aziz Dabala bi mu bi mu gaañoo euh, nit ñi nekk ci TikTok bi guddeeg bëccëg. am Aziz indi Aziz am Aziz indi Aziz te ki dee ma yaakaar ni ñaan rek moo ko war a dese waaw moo tax euh, mani la dëkk bi léegi dafay yàqu imaginel ku dee nga war ko ñaanal ngay wax ci gannaawam loo xamante ne neexul yàlla. ki xas ba dem waaye daaw bi dem ñaanal ko moom ay ñaan la soxla mais pas ay wax yu ñaaw waaw léegi nag dëkk bi dafa yàqu ndax bàyyeetuñu sax néew bu dem te yàlla toppeewul néew dara yàlla sunu borom nee na guy gi ku xas ba wane ginnaaw lu rafet rek nga ko war a waxal kon xanaa du yàlla kon moo am sutura Aziz Dabala yàlla na ko yàlla xaari fil si man xamee ma ko dara lu ñaaw yàlla na ko yàlla na yeggale ndawam àllaaxira ca fil daw si. kontaan naa. maa la gën a kontaan guy gi yow danga nga baax yow guy gi da nga baax guy gi doo def lu ñaaw doo wax lu ñaaw sa site internet doo ci dugal lu ñaaw yow artiste yëpp la bëgg Sénégal. wax mu ne la guy gi l'international nga xew lool nag léegi laa jëlee samay parfum Dubaay nga jënd ba pare mayaat ma parfum kon guy gi yaa ma jàppale yàlla na sa jàmm yàgg yàgg sa caméraman boobu. kontaan naa. maa la gën a kontaan. seen teewaay fii si Jatu Sebo naan leen Jatu melul nen tolul nen yorul dara mais ànd ngeen na seen yëg-yëg si Jatu Sebo àndax seen pas-pas. waaye àndaax mbëggeel gi ngeen bëgg Diatou euh, c'est ak cofeel gi ba tax na du ma dem fenn dimanche bi jatu sebon laay dem fekk ji nee naa leen su ma doon anniversaire kenn waxatu ko kon fii dafay fees del parce que yow bébé Eva fekke nga ba may def anniversaire nee naa leen boo wàccee sama compte TikTok boo duggee si biir ku ne da naan xanaa kii da doon réception waaye defuma ko pour pukkare dama ko def rien que pour boo liggéeyee ba année bi jeex say employé war nga leen a mën a bégal ma bégal leen nag du damay dem ak fenn di dem di leen taxawal fenn si benn pays mais am naa droit sama kër fi ma dëkk ma invité leen foofu sama at juddu bu dellu see ma feete sama anniversaire béggee ka ak ñoom mais loolu dama koy rafetlu nee naa ko ko rafetluwul tamit doo nit. dëgg la may dellu di wax ni euh, toujours rafetlu naa seen teewaay fii si Besseyao ak Diatou Sebon waaye di dina wax ne tey ku ne xam na ni da doon taw moo waral li tardé ba heure bi waaye taw bi nee naa leen xéewal la. ndax le 23 août laa juddu mais jour bi dafa yemb woon ak màggal gi guy gi yaakaar naa ñoo bokk bésu judd. mu yemboo bés bu tedd boobu. waaw mais dama ni naa ko bàyyi ba semaine prochaine. ma dajale employé ñu waxtaan. ma invité samay xarit ñu bége waaye ku ne xam na ni ren été bii benn son moo fi am nee naa leen di cartonné fu ne mu wër àddina muy son wu bi nee naa ko bu ma wooyee du ma ni bulet ndax fii la ma rëkkal nee naa ko lu neex son bi day yoot waaye bu rëkkee rek nga xam ni mba rëkk na dëgg la fii la ne woon jatu c'est bon sa c'est bon neex na yaay doomi yoo xanaa neex eh wu yaay zamba oh eh, eh. wuya wuya ay dafa neex li dafa neex nee naa ko mu neex ba dee mu yemboo bas cung ne man nag sa jour anniversaire il faut ma def sortie bu njëkk ñëw fii nee naa la son bi ma pelay bakk lu neex basang si yoon wi di ñëw nee naa lii ku ko tàrde na ngay tardé lu neex king ambiance nee naa ko ndongo farimata à tout li ma koy wax yàq yaay Baba Diagne Mama Tari Mbaye Diagne nee naa ko lébub ndakaaru bi bu ñuy séparé Sénégal fii bu dee quatre parties dañ koy jox benn ndax du juddu jéeri du badantaan nee naa ko Sénégal fii la dëkk di lébu ñaari yoon lébu si bàyyi lébu si ndey king ambiance mbëgg yëg a koy fay moom ma bëgg ma bëgg nee naa ko nit mënoo koo jox ju mu yorul bas cung xameem wi romb na fii jatu sebon yorul dara melul nen waaye lu nañ réew mi da koy wax sama diggantee bas cung waaye moo ma def ni ma ko def te koo xamul noo koy def dafa dëgg yàlla nam la def a tax mooy li may waxal bébé Eva toujours waaye kontaan naa bu baax a baax a baax nee naa ko fii ku fi ñëw ku fi ñëw maa ngi rafetlu sa teewaay fii ndax rafetlu ko weesuwul muy taw ngeen taxaw ndox mi di dal seen kaw ngeen ni doo leen buuse fekk jatu semoo ñëwul wallaaxil azim Bébé Viva da ngeen baax rek di wax da ngeen baax di wax ndax dama naan bu nit ñi di ut alal nanu ut nit ñi boo amee nit ñàkkoo dara ndax tey ji lu ma soxla woon su ma oowee Bébé Viva mu andil ma ko nee naa su ma oowee Diva Saliou mi mu andil ma ko waaye su ma owee asalaw bi dama ma koy andil bineen moom waxuma ay waxam wax dëgg yàlla ndax li sama kanam moo ko si def nee naa ko salon lañ tijji fii yoof salon bu wër àddina ñuy defar lu baax a baax a baax lu ma sol dëggantaan moo baax de billaahi man ka bintalay mii li sama kanam moo ko si def kanam gu niin gi tiim jën ba yàqu tiim diwliñ ba yàqu ku ne xam na ni jatu sebon cin dafa oos si yaramam à li may wax rek nee naa leen su ma neexoon damay yor sama oto gaare nee tëdd ba midi wala ma tëdd ba deux heures ñëw di diriger emploi yi naan leen def leen ni def leen nii waaye tënni ba ñu sol man moom laay sol àddina amul solo lépp teraanga la tey ku ñëw fi bu ñu kii mooy jatu sebon da ngay xoolaat jatu sebon dafa tur wi egg jëmma ju eggu fa waaye gëm sama bopp rek moo ma yóbbu fi ma am ah dégg sama ndigalu waajur sàkku ndag ñaanam nee naa leen na gars yi sàkku seen ndigal waajur tarbiyu seen yaay yi nee naa leen di leen tàllal loxo di leen wax ñu ñaanal leen fii ku fi jiitu sa ndey la ba ma nañu dégg ndigal ku compté perte yaay tey rabu seen yaay man sama yaay rek laay topp man bugguma keneen ku dul moom maa dem mel farma jéey Alima Ndiaye mi si fi yaay nee naa ko suusa ngaari njar meew dëgg la ma ni kat njar mi boo si deful glace neex na ba noppi ndax da ngaa lewet lool siise ngaari dundal dundal dundal dundal dama ne dundal rek laa na ñaanal maa demel farma jee à tout moment da ngaa war a dundal ndax sa dundal daa am njariñ lool si man ndax saa yow man du ma dem sa ñaan dafa am solo nee naa ko gars yi dañuy jéem lu ne waaye heure bu ma xëyee nga ñaana ma damay dem ndax à tout moment ku la wóolu rek moo lay bàyyi ne la demal dëkki fële ndax moo jege sa bëri bu liggéeykaay ndax xam na maay kan moo ma yar xam na ni ma man damaa diñ nee naa leen góor yamul jigéen du yab ndax damaa xam sama bopp xam maay kan waa ndax moo ma tax a tuuti nee naa leen man du ma ànd ak bébé ama mu may tënk du ma ànd ak binta lay mu ma tënk fu ma neex laay dem man jatu c'est ku ma neex laay toogal te fu ma toog dinaa limité samay parole ba kenn du ma yab ndax kenn du ne ma kaay yaa fi wax lii ndax dëkk bi dafa toj gars yi dañuy sëpp seen bopp jël seen tànk yi jiita teg si kaw moo tax nit ñi dañoo foomu foo dem rek xamal ni nga fay toogee mais kontaane naa leen ne diva Saliou borom ñaari Saliou barke Seydina Mouhamed kontaan naa ndax man sama bés ma kontaan mooy jatu ñi teew fii ñëpp nit ñu baax lañu amul kenn koo xam ne rek xool nga kam mu désordre fii si toogaay bi ñu baax rek moo fi ne su ma ñëwoon si toogaay bii ma fekk fi leneen kon duma fi toog de damay dem ñibbi mais jatu mii ay magam a ngi fi ay nijaayam a ngi fi man samay rakk a ngi fi man daawuma liggéey dara dama daa toog rek sama rakk yi ñoo ma daa jàppale bu weer ku ne dangay ngay wañña li ngay wañña ñëw jox ay magam yu góor yaa ngi fi bàyyiwuñu ma de ku ne bu weer yaa ngi def li nga war a def si man waaye jatu mii moo aye tey ji jatu bu weer wi dee dañuy ànd sa bitig ba sama dépense yëpp lay wàññee ba mu mat mu bàyyil ma ko te du tax ma bàyyi ka de minute bu jot ma ne xal bi demal ma sa jatu nekk na ma jox nangam bu ma jéppi woon benn yoon maa ko de waaye kon du ma yónneewaat si moom mais jatu li ko war suba ba ngoon mu ngi koy def magam jii muy sooda mu nga ne le liggéeyul dara moo nekk sa kër gi mais bu weer dee li muy wàññe jox ma loolu lay wàññe jox sooda doomu magam baa ngi nii papa ma ngi fii man na kaa di ko fayal jàng mais moom mii moo koy fayal moo koy xotti mooy def li kon jetu maa ngi lay ñaanal ndegem maa la jur si farata yàlla sunna su Muhammad yàlla boo sonn jetu yàlla la yàlla jàppale jatu loo ragal yàlla boo ko gis jetu ku la nar xaar yàlla na xaaddi ndegam ñaan ak waajur dina jariñ doom jatu sama ñaan gi yal na la jariñ tey jii dama sol way ñëw asamaan si xiin ma ni waa amsatu sama jabaru rakka bi waa amsatu xiin wi nuñ koy def mu ni yaa nan dem rek jatu moom kenn mënu kaa toogaal si lañ jël taxi ba fii ci ñëw fekk suñu waa kër ñii ñu toog jatu man daal manuma laa waxal dara dama lay ñaanal si yàlla rek ñaan rek laa desee yow maa ngi la koy defal yàlla na la yàlla jàppal wallaahi ak xaritam muy àndal nii yéen jeeyu leen jetu dugalu leen ko si lu bon yéen a ngi koy xiirtal si lu baax rek kon yéen ñii yal na leen yàlla bàyyeex jetu yàlla mi am lu baax di ko def yal na leen ko boole yéen ñëpp si daraja yonante bi bas nag maa ngi koy ñaanal bas cuun moo bëgg a jetu rek te yàlla tax jetu bi bëggee eh, kii bas bi mu bëggee jetu mii du tey yàgg na lu jetu daa xewle rek bas day ñëw kër ma di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokka bas yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg si daraja yonante waaw kay jaa ngeen jëf yàlla na leen yàlla fay waaw baax